saa tey ñii nag ñu ngi fii si rëbës ñëw am chance dajanteg ki nga xam ne la ñuy wax euh, monsieur le maire sénateur Farel Gueye nekkoon fi ñu xëy depuis bi nga xam ne 2014 euh, euh, si la gëj si langue politique bi ñu xëy gis ko fii mu ñëw ànd ak rakk ji muy def proximité mu nekk loo xam ne surprise la ñëw du ñu def lu dul laaj ko mu nuyoo ñu dugg si li nga xam ne moom mooy waxtaan bi.

donc magi euh, magi maa euh, leen di nuyu yeen ñep ku ci nek euh, ci turam ak ci santam di contane lol tay def sorti fi ci rebeus and ak sama rak Abdou Khadre gay candidat à la mairie du plateau mu andax ay conseillers am Awa Niang ànd Fatou Diop ak ñep mënuma lim ñep Euh, mu doon ma première sortie poétique depuis une dizaine d'années kenn desatu que ci langue poétique bi ma choisir parce que c'est un endroit symbolique pour man si je ñëwee fii nga xam ne mooy koñu Omar Koulibaly, di koñu Jonze Coulibaly hein, di koñu euh, Manga fekk sama ay xarit sama ay Mak, sama ay rak euh, vraiment mu doon mbégte bu fort fort fort fort ci donc maa ngi nuyu

ñu léegi fan la monsieur le sénateur maa ngi fii dakaar ndax man yàlla dafa def ne bi may def politique dama ko boole woon am métier ñu fal ma mu doon parenthèse bu nu ubbi woon yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko tëj parenthèse boobu ma dellu ci sama métier dellu ci samay activité dellu ci samay mbokk dellu ci samay xarit aussi simplement que ça. nan nga gisee actuellement langue politique bi parce que yow gëj nga ci langue bi tey jii noo gisee euh, local yi nga xam ne si lañ jëm par rapport ak candidat yi nga xam ne ñoo fi nekk ban gis nga ci ak ban jàngal nga ci am. mu ne nan nga gisee élection am voilà. écoute élection locale la nga xam ne calendrier républicain moom moo ko taxawal. du loo xam ne man maa ko décidé. wala Macky Sall moo décidé wala keneen moo ko décidé c'est la République du Sénégal qui est organisée ainsi moo wax ne nit ñi ñoy bolo fal nit ci seen biir mu jité leen mom app bo xamné suñ fa tolo pal bobu dañ koy delloowaat ci askan bi delloowaat ko ci mbolo mi ñom ñu waxtanaat ci seen bop am keneen su fekkee neex na leen wala ka fa nekkoon ñu reconduire ko ci loolu la nek nous on est des républicains bo ba légui ken déggu ñu ci dara xastewunu saagawunu xataraayuwunu waxuñu wax ju ñaaw dañ doon xaar rek bés ba nga xam ne moom la constitution may nit ñi pour ñu samp candidat boo xam ne dina dem à l'assaut de la mairie bés boobu jot na tey suñu candidat di Abdou Kaar Gaye ñu ñëw di ko jàppale pour incha allah jël mairie Dakar Plateau. waaw si jàppale boobu si jàppale boobu. si jàppale bobu sax laay wax gis nañu sa rak ki nga xam ne mooy Abdou Khadre gay wacc ci terrain bi nekk candidat nek si coalition 2035 ñun ñu gis ne yow nekkoon nga fi maire ñàkkul na am na loo xam ne liggéey woon nga ko fi ñu gis ne ñu lay soog a gis nga ñëw nekk si wetam la moo waral choix boobu. mu ne lan moo waral choix bi mu porté ko ci Abdou Khadre Gueye du candidat coalition Sénégal 2035. ben écoute parce que sama candidat la mais ce n'est pas parce que sama rak la man yàgg en matière de politique en matière de gestion communale awma en ci mbok awma ci xarit ki liggéey ak ki di rek la xam té Sénégal de am phénomène bu bu fi am n'importe qui day xëy rek dama bëgg lé dama bëgg a Sénégal rek la nit de ngay jiite ay nit day ngay pal nga won nit ñi ne da nga am tiofel ci askan bi da nga am tiofel ci sa dëkk te Abdou Khadre gay musul def politique musul bok ci ben parti politique mais ban ko xamé ba Dakar Plateau ragné nan ko ci engagement bu mu am ci bir communauté di ci daw à travers son organisation qu'on appelle EMAT lu nekk mu duggal ci loxom muy jang bi muy sport bi muy ndaw yi muy jigen yi lu nekk ci poosu bopam ci xam-xam bopam ci mën-mënu bopam donc ma am yaakaar ne ki nga xamne day def te ken jox ko. bés bu nu boolee sunu alal ak sunu mën-mën jox ko dina ko tek ci yoon yi nga xam ñun mom lañ ci am yaakar loolu rek moo tax ma jàppale. waaw monsieur le maire mun lo fi tok te duñ la laacc euh, question bi ndax gis nañu fi yaa yoroon maire bi te gis nañu ki fi nekk actuellement muy Alioune Ndoye monsieur le maire saa yi buy bi mu toogee ak léegi saa yi buy tudd il faut mu wax si wàllu gestion bi nga xam ne moom nga géré woon te yu paraît chaque jour da nga dégg mu ne bàyyi na fi 5 millions. bàyyi fi euh, nu mu tudd euh, crédit euh, boru six cent et quelques looy leeral ci loolu. waaw mu ne mënul jeexal talaaju ko question bi mooy maire fi nekk chaque fois buy wax fa mu dugg ci gestion di wax ne moom bi muy jël maire bi six millions la fi fekkoon fekk na fi encore ay bor yoo xam ne chaque fois moom moo ko fekk moo ko hérité ci gestion mu koy laaj moom nan lay tontu ci loolu.

échec mënul wessu man ma yoron maire bo xamné budget 800 millions la jëm 1 milliard mom ci ay waxam mu ne am na milliards muy tëkkale ay jëfëm ak samay jëf wa doguma la sax 13 milliards la question bi dafa important bi nga tay ji li nga xamné mo doon ful ci mom moy mu nawlante ak maire yi nga xamné ño bok jamono tay ji na nawlante ak Bamba Fall na nawlante ak Barthélemy Diaz na nawlante ak Sohar Wardini man dootuma maire je ne suis plus exercice waaye nag naa tontu euh, gis nga boru maire yi du boru Fadel Gaye du boru Alioune boru commune d'arrondissement Dakar Plateau la te fi ma dugal alal boobu waa Plateau gis nañ ko sama baat

da ngay jël nit liggéeyloo ko mu liggéey ba pare ngeen def réception ba réception yi lépp ñu xam ne lépp baax na état soog a fay ko keñ sooy dem di nga fa bàyyi bor bor boobu kii ñëw alalu plateau na ko ci fay loolu mooy dëgg boru 600 millions boru 5 millions ce n'est pas important li important mooy bor boobu fan lañ ko dugal le Sénégal a plus de 3000 milliards de dettes criminelles toujours Macky Sall wax ko nan xam léegi bor bi fuñ koy def bor bi musul dugg sam poche et je dis que c'est une honte c'est une honte et c'est un échec pour un maire Nan j'ai gardé dans mes caisses 13 milliards de francs Lolo, maire bu am touti xam-xam war nga ko rus a wax ndax loolu dafa melni problème euh, plateau yëpp rek lañu plateau àjjina la fi ken fi comme dans le meilleur des mondes ce n'est pas possible le budget d'un État comme le budget de la collectivité locale mhm. est arrêté en somme et en dépense d'une manière égale mhm. alal bu dugg ci biir commune bi prévoir nous déjà fan koy def denc ndax lo ko sa denc lo ko sa mhm. askan bi alal bi su duggee da ko war dépenser ci askan bi man yooyu rus ko wax mais ce sont des choses yo xamné ce sont des choses tellement graves que wa Dakar Plateau s'est waru ñu nangul lolu nan dem ne ko suñu 13 milliards yi nga denc mais genn ko ñu régler ci problème du Dakar Plateau kan la koy dencal donc vraiment ce sont des choses yoo xam c'est stérile c'est puéril le débat ce n'est pas là débat wu du li fi amone 14 ans li fi amone 20 ans débat bi moy tay tay tay tay on fait quoi loolu moy wax ji un maire qui a fait 13 ans tey waratoo waxu programme mm-hmm. da nga war waxu bilan mm-hmm. ana li nga def mm-hmm. ana lo fi na nak bu a ba maire man 2009 la génn ci maire bi midi la fa génn 2009 ba tay muy 13 ans bala muy wax na baye ba na fi dans 13 ans je ñu ci terrain bi dina ma wax ndax na fi wala fi waaw si bëgg euh mandat yi nga xamné jot na def mom def na fi ñaari mandat ne fi di ci sa loolu ci wax bi nga tabax mais mon tabaxul dara inachevé 2 milliards 3 milliards 1 milliard def nañ ko feder ba tey yi ñu ngi ko tëj. alal bu jëriñul mooy arañ bu bu kasara. jet d'eau bu du tabax fële te mënul yegg. loolu al kasara. C'est service d'hygiène bi nek biir Dakar Plateau. nekk un joyau architectural. nekk un bijou un souvenir ñu tëj ko kenn def dara loolu mooy alalu kasara. donc tey jii alalu Plateau dafa tumuranke ndax un maire incompétent. alors. moi di li may faral di wax xale yi di ko di ko fàttali yàlla rek mooy fal yàlla rek mooy fal celui qui sera maire dimanche prochain yàlla calendrier na ci boppam ba pare mënuñu ci dara su dee Abdou Khadre mii la kenn mënu ci dara su dee keneen la it kenn mënu ci dara bu nu fàtte xel loolu waaye du tere ñu wax ne lii ñu dis fii ci Dakar Plateau man musuma ko gis ci ben maire ndax maire comme je dis encore tabax bax na ci waye maire da ngay mère, ay nit ñu la fal liñ la jox sa mam, donno ko say mam, sa qui xexu ko jox lako ñun ñep ño dajale suñu alal dajale suñu mën-mën dajale suñu jox la ne la jitel ñu jëk ci yow xaar ci yow humilité li xaar ci yow générosité sa bop ba bassin bi gëna soufé ci plateau nga ko ce n'est pas ce que j'ai vu dans ces mers là gisuma ko ci moom gisuma ko ci ñu bari ñuy andal ko ngay mbag tak cravate daf sen auto defé ne ñom ñoko momal sen bop di wax la maison. wax sam diko wax ñëpp gis nga nguur bi muy ce 23 muy qui 23 muy ci ni wala ci dina un jour ou l'autre ci tok te duma la laaj ki nga xamne moy mooy sa rak ñu wax Abdou khar tey mu nek candidat yow ban gis-gis nga am ci moom. ben xam nga olof dafa ne olof dafa ne. mu ban gis-gis am ci candidat bi. lu mu wax ci bey bu febar ñu ne derba mo tax kii mënuma mako sédé ndax danaa lek frère euh, duma ma témoin ci mom mais wa plateau ñokoy sédé emat je koy taxawal commune d'arrondissement plateau taxaw ak ay ak ci sans exception ndax du c'est une équipe suma ma aladi mbay Mbaye Diagne hein, papa kilifa kilifa Dakar sax lay mais dem ko remarqué suma ma Jules à ses côtés sous ma dis son frère Moussa quand je vois tous ces valeureux fils du plateau nga xamné ne ba nuy jug di liguey pour plateau kenn ci ñom amu ci âge électoral nga jox leen mairie ak ah, nga bañ leen jox mairie donc yaakaar bu nu am ci ñom ndax liñ ñu won motax ñu ne wa Dakar Plateau so leen leen jappelé di ngeen am maire bu leen liggéeyal ndax nak

kon daal mën nañu wax ne am ngay am am ngeen yaakaar ci Abdou Khadre. man du ma doxantu du ma waxantu du ma toppantu man ku ma topp rek am naa yaakaar ci yow ndax yàlla dafa def ñun ñëpp fii ci Dakar Plateau nga def ñu teel a dab. yaa ngi wax léegi fan laa nekkoon. ma ne dama amoon sama liggéey. balaa may nekk mairie. mairie bi jeex na ma dellu ci sama liggéey. di tedd te kenn fekkuma ca la may teddee. Mhm. yàlla kese moo ma ciy fekk. donc muy moom muy keneen. Mhm. topp moo ko ndax dara. Mhm. su fekkee ne woon daf ma woon leneen. loo xam ne du yoon. ñu ne kaw ndax man ci maire bi xam nañ ko. kon te billaahi wallaahi taalaahi du ma ko topp du ko topp yaakaar lañ ma

Euh, maa ngi leen di demander bu leen def violence bu leen top kuy def violence ça c'est le message que nous lançons donc nous on a toujours été contre la violence xoolal ñi ban garde du corps nga fi gis ban mbër nga fi gis amul bu lu dab ñun ñooy défendre son bop maintenant nañ ko mat nañ ko te mën nañ ko def donc vraiment ñu ngi leen di exhorter ni ngeen def ba tey wa ba kenn dabu leen kon ne leen kenn dab te am na nit ñoo xam ne kenn du leen dab. lan mooy sa dernier mot. mais di ñaax waa Dakar Plateau ci ñu góor góorgóorlu taxaw taxawaayu fulla te nanguwaat seen mairie teg ko ci ay loxo yu wóor. c'est tout.